ñun ñooy jaayee fii dañoo lakkale dañoo ñoo jiite amble ba pare ñoo nekk ay sinistré dañoo lakkale démb ñu woo ñu réunion bi ñu woo réunion ñu yaakaar lu ne lañ ñuy doyee ñu ne ñu sëriñ bi nee na yéen ñi nga xam da ngeen a lakkle ak ñi lakkle la le cinq février dañ leen fii jëlee. kan moo la Ka moo ko wax maire de Touba. ba no te biñ fay toog réunion bi su préfet moo ngi fi woon maire Touba mi ngi fi woon Abdou Lahad Ka ak président Aziz ak délégué marché bi Sini Dieng. ñu yaakaar ne aw askan lañ ndax 2000 personnes du ay caaxaan ay taalibi lañ aussi dëkk ci dëkk bi comme ñoom niñ dëkkee ci dëkk bi kon yaakaar naa yërmande mën naa mën naa daw nit koo xam ne dafa amoon alal lépp lakk ba jeex amoo dara loo koy teeroo ci dama lay jëlee fii yóbbu la foo xamut mën naa sax proposé marché marché. Euh, exactement lan wax. loolu lañ ñu wax. mën nañ leen a proposé marché ndaamaatu bu ngeen bëggee ñu ne ko bëgguñu marché ndaamaatu bëgguñu benn marché. léegi nag beneen bi ma bëgg a ñëw mooy marché bi ñu nekk dañ fee nekk ay association ñu woowoon ñu ci ne dañuy dañuy jàppaloo dimbalante bañ demee ba àgg bi ñu gisee li maire wax dafa mel ne bi nekk ci bi loolu daf leen arrangé te association pour intérêt du diine du dara comme dañ assis la tudd comme que ñoo wax loolu ñun ak ñoom dañuy seet suñ ànd ak ñoom ndax ñun suñu intérêt la ñam parce que bala nga ne naam bu ñuy bokk ci assis c'est parce que dañoo nekk fii di fi jaaye buñ fi jaayeetu bokkut loolu daal laa doon ubbil gars yi ñiy war a wax bari nañ. léegi tuxu gi da ngeen ko nangu wala dañoo nanguwul tuxu duñ buuse mètre wuñ tey tuxuwuñ suba fii ñu nekkoon ku ñu munta dimbale ku munta sarax gumba bàyyi koog lim yalwaa. gëmuñu ko sëñ bi du fekk ko lakkale ba jeexal ñun sëñ bee ñu yar ci moom lañ juddoo ba toll ni du fekk ko lakk ba lakkale ba jeexal moo an jëlee leen ko fi lool gëmuñu ko wallaay laasim gëmuñu ko. dañoo wax ni maanaam euh, leen jëlee fii dañoo am feneen mën naa leen sax proposé ndaamaatu la wax marché ndaamaatu man ndaamaatu laa dëkk bu doon marché bu baax bu ñu mën a dem sax waa mbedd ñi lakkale donc xajuñu fa yaa ngi dégg léegi nag loolu def ko wax pour ne moom ndimbal lu muy def la mais ak gàddu lu ñu dara biñ ko laajee après boo ñu yëkkatee fii loo fiy def mu ne li ma fiy def ko xam. léegi lan ngeen di nar. li dañ leen di fi yëkkati lan ngeen dañoo yëkkatiwut dañoo buusewut bala ngay nar fii la ñuy toog lenn moo mën a am ñu organiser marché bi kenn ku ne am fi nga war a nekk yoon yi di jàll yëpp di jàll nit ñi dox seen soxla mais mënuñu noo forcer ci dara. ñu ne sëñ bi dafa loolu lañ gëmul nag ñun loolu lañ gëmul moom moo ko wax monsieur le maire moo ko wax foofu rek nga ko mën a déggee moom moo ne sëriñ bi dina li dafa joxe ndigal ne Baye Fall dinañ ñëw yëkkati leen vingt 25 février yaa ngi dégg waaye loolu lañ gëmul ñun. xam nga dañoo bëgg a jël ambulant yi dóor leen ci kaw sëñ bi te loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. ndax ñun ay taalibe lañ te kenn gënuñoo dëkk ci dëkk bi kenn gënuñoo gëm sëñ Tuubaa maire bi daa war a seetaat boppam ndax moom defurut dara ci dëkk bi bu doon ay carte koy fal du fi falu mukk waaye nag kaddu kilifaa ko fi teg kilifa googu lañ koy ruse te xamul loolu nag ku xamul nag buur saay na ñooy la buur deena léegi nag ñun dafa doy Touba ay jeunes ñoo fi bari ñëpp ay jeunes lañ marché Ocass bi mooy xolu dëkk bi ñun fii la ñu am nañ ko organiser Touba ca kanam lakk gay weesu génnoon nañ ab plan ne dañ defar marché bi def ab maquette wan ko kilifa yi wan ko commerçant yi wan ko ñëpp ñëpp ànd ci ñoom ñoo ko bloqué marché bii dañoo bëgg a yëkkati jaaykat yi def ko parking wala ñu jaay place yi noonu lañ defoon ñaari marché yi yëpp jamonoy sëñ Abdou Lahat ay policiers am nañ ci ay place am na ay bëkk néegi sëñ Saliou fi amoon ay place te loolu lépp ay lobby la yoo xam ne ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg suñ kàddu nag ne poto bañ ñu ci dara ñun ay taalibe lañ nag kenn duñu jax si sëriñ bi sëriñ bi moom samix naa wa ataanaa rek la ñuy jëfandikoo ak moom ifxal ak laa tafxal lañ seq ak sëriñ Tuubaa ginnaaw gëm gin ko gëm ak bëgg gin ko bëgg mbedd mbedd mi nga xamee ne moom la ambulant yi dafa mel ni euh, sabab la ci lakk gi yàqu waaw xam nga lakk gi ñoom dañ koo bëgg a jël tey la ko ci ambulant yi ambi amul benn ambulant bu jël alalam ak alal ni mu fooree ak ni mu saxee ci xol nga ciy suturlu jël ay barassement yu bon ko ci def wala nga di ko lakk amul benn ambilaa bu koy def. waa ñun ñëpp xam nañ ne situation bu ne situation oblige la ñoom seen faay la ñoom ñoo war a organiser marché bi te organiser wuñ ko li am lépp ñoom seen part de responsabilité totale la ñoom autorité yi. ndax loolu ñoom ñoo ko waroon def ñoom ñoo war a encadrer nit ñi ñoom ñoo war a yóbbu nit ñi fu ñuy liggéeyee loolu ñoom la war. seen wàllu bopp mu seen bopp ba am espace boo xam ne la première fois bu fi amee amaat fi ngeen bàyyi espace boo xam ne maanaam nekk xam nga li ñuy wax ne civil mun a yor morom ja ñun ñëpp ay doomu aadama lañ mais dafa autorité locale am autorité religieuse am autorité boo xam ne ay police ak gendarmerie lañ ñooñu am na loo xam ne loolu seen loxo la nekk mais ñun li ñu war ñun ñun ñun li ñu war mooy buñ xëysee dañuy lal ci kaw tali bi ñii di lal ci taabal yi ñii di am ay casque mais li problème bi mooy problème bi du du du euh, sapeur ñàkk gi ñàkk accès ci lakk gi ambulant yi ñoo ko waral déedéet maanaam bu ñu waxoon ak ambulant yi wala ñu waxtaan ak ñoom wala ñu organiser leen sapeur heure su ñëwee dana am ci lakk amul boo xam ne bu lakk amee maanaam sapo day ñëw ba fa lakk am ñu fay ko loolu amut fenn. digal liñ dégg ne na mooy li ma wax léegi xam nga ñoom li ñuy jabulise nit ñi lañ war a bay mooy bu buñ ne sëñ Mountakha nee na jox na xalifa jëli jox na ndigal xalifa Baye Fall yi ñun ñëpp ay Baye Fall lañ sëñ Touba benn taalibe la muy man Serap Fall ku jébbaluwaat Mame Serap Fall mooy sëriñ ñun ñëpp ay Baye Fall lañ dama bëgg ñu xam ne maanaam loolu du jàll pexe moom du jàll ndax si loolu lañ def waa Garba te loolu sëriñ bi bëggul ku lakkale ba yoratul dara ndax yaakaaruñ pour sëriñ Tuubaa ñu wëlbatiku yow yoroo dara ñi la yóbbu ci marché boo xam ne ay place jàmbur la ñun marché bi ñu yóbbu ay place jàmbur la ay kante yuñ tabax ba pare la léegi ñun ñooy fee pour lan. am ngeen solution ci lii xew am nañ ci am mooy. ñun moom ñun moom lenn rek a mën a nekk nañ organiser marché bi. ambila yi lal kenn ku ne lal fi nga a lal débordement bañ am bu sapeur bëggee ñëw maar détail yàlla bu fi amati mais bu sapeur am accès ci marché bi mën a mën fay li mu fay ñun loolu la ñu bëgg loolu la ñu bëgg waaye bëgguñu maanaam ñu ñuy jël dañuy yóbbu ay yeneen marché yoo xam ab ambila du sañcu marché ab ambila du sañcu marché ab grossiste mooy sañcu marché ambila fekk ko fa loolu la loolu la àdduna di doxee waaye mun ñoo jël ko dara di ko yóbbu foo xam ne dara nekku fa waaw sole marché ambila naa fi 2200 2000 bi Cheikh Béthio toj lii ngay gis nii ñaari marché yi yëpp ci moomeel xalifa général de Mouride la nekk lii ngay gis nii sa ginnaaw marché fëgg jaay la woon bi marché bi lakkee dañ koo nangu ci nit def ko ay place jox jaay ko commerçant yi ñii nga gis nii ñu ne ci commerçant yi ci marché bi nekkul loo xam ne ñoom ñoom moom lii san ñaari ñaari marché yi bu ñu ko defee R plus 2 wala 3 organiser mbedd mi kaw gi mën nañ cee jaay ñu jaay fi jaamana ñooy leneen bi des mais interpellé Gallas Khouma mi nga xam ne moo jiite assise ndax dañu ñoo wor ndax ba da ko wax ne ko boo ñu defalee marché bi mën nañu laa gagné élection yi loolu lañ fa wax biñ ñëwee fii biñ defee seen réunion dañ ne dem nañ ci président ba danañ defal pawaas yi saa bu pawaas ambalay dañu abal loolu discours boobu lañ def kon dafa mel ni daf ñoo wor mais interpellé président de la république ne ko ñii dañ koy nax ndax dañ ko waxoon lépp dara du ci dëgg dañ ko mën laa gagné élection yi mel ni mu El Hadji Fall seul responsable moo taxaw yi ñoom ñu waaf ñi jël ne ne ministère ko dëgg ndax bu ñu ko waxoon dëgg ñaari marché yi bu ko tabaxe ni mu war a nekk war naa mën a nekk ñi leen interpellé leen mën a may nag ñu ne yi di jaay garab yi wala bëlu di jaay ay pharmacie ci jaay ay pharmacie sëñ bi tëree la loolu war nañoo mën a taloore ñi mën a defal marché yi ñu xaj fi ndax fii boo fa dugg ay pharmacie nga fi gis yoo xam ne amuñu droit jaay garab amuñu droit def ko ba pare sëñ bi may leen loolu ba pare ñun ñu bëgg ñoo sacrifier est-ce que loolu nangu na ko ñun ci ndigal la ñuy wéy waaye nag nangoo jël ñii mook siili jag ñu bëgg ñoo complété ak laat ka bëgg ñoo teg loo xam ne dëkkooruñ ko duñ ko nangu parce que nag yàgg nañ ci dëkk bi xam nañ lu bari fii man ñaar fukk at ak ñaar maa ngi xam naa lu bari ci marché bi waaw leneen mën a toléré ñu ne fii di jaay ay garab di jaay leneen te te ñu kenn waxu leen dara war nañoo mën a toléré ñu organiser fi jaay fi ne fi waaye bañ demee président dañ ko wax dëgg dañ ne man laa gën a instauré boo ñu defalee marché mel ni Alaaji Fall kese moo fi taxaw def déclaration ne Macky Sall laay jàppale ñoom ñëpp dañoo waaw loolu du ndigal du dëgg ndax man keroog dégg naa bi bi nga xam ne ne gaar bee ñu ngi koy toj ban demee di ko wax sëñ bi am na ñoo xam ne mat Diop Diop nee moo ko fekk bokk waaw mu taxaw mu ne ko bu ngeen bañ demee li mat Diop wax ne ndigal lan loolu amut amut def nañ suñuy recherche ñun loolu marché gaar ba fii amuñ benn digal loolu la ñuy wax dara du ci dëgg amut li lañ wax mooy dafa wax ne le 25 dañuy dañuy yëkkati marché bi waaye lool amut ndax def nañ suñuy suñuy suñuy source dem nañ ba am ñoo laaj ñu ne sëñ bi waxul lool waaw marché bañ fa njëkkee dem sëñ bi dee leen defar leen neen def neen ko waxtaan ba déggoo ci nag duñ naa ko sarax kenn ñoom galas ku mën a fekkee ne ñoom yaakaar ñoom maam marché wala ñu ndayi leen ko loolu suñ kanam la nekk ndax ñoom ñu ngi fii di jaay ay ay pharmacie yoo xam ne amuñu droit jaay ko sëñ bi toléré leen loolu léegi toléré leen loolu nag muy muy ndimbalu sëñ boobee war nañoo mën a toléré ñu defal ñaari marché yi R plus 2 ñenn ñi ne ci kaw ñi ci des ne ci waay yi waaye ñun demuñu ci benn marché tey demuñu benn marché ëllëg